qui était un reporter qui a gravi les échelons pour arriver au sommet bu doon beneen réew dañ koy jàngale cas d'école mais je dis c'est arrivé lu am la parce que tout simplement da nga am ay nit ñu nekk ci profession bi ñu la bàyyi xel ñu la jàppale ñu la tette moo tax ñu arrivé à ce résultat la le résultat de Sen TV de Zik FM c'est personnel c'est des gens qui se sont battus pour arriver à ça xam nga kan on fait un communiqué pour dire oui Bougane Gueye a battu sa fortune xam nga ça prête à équivoque pour un groupe qui est déficitaire mooy li may wax sànq Moustapha la forme dafa am solo quand quelqu'un écrit pour indexer tes ambitions pour indexer dit-il ta fortune yéen xam ngeen ne presse joxewul xaalis ñoom bi ñuy ñoom des médias bi ñuy jógee fële ñu loué di dem immeuble boobu ñu nekk immeuble boobu ñu nekk moomuñu ko d'accord moo ko moom moo ko liggéey moo ko tabax alalam la. bu alalam la. on a fait un investissement tout le groupe holding bi. pour presque 3 milliards pour leur permettre d'être là-bas alors su fekkee ne loolu mooy fortune yàlla dim teral na ma dim laata D-Media di ñëw c'est important donc quand fasse euh, euh, que les gens fassent un communiqué pour indexer pour dire oui il est, il a bâti sa fortune en exploitant des Sénégalais je trouve que c'est méchant pour que d'autres sautent là-dessus pour t'attaquer pour dire oui vous êtes présidentiable alors que crois qu'il faut savoir raison garder. C'est un dossier. Quand je me sens lésé, je vais en justice. C'est ce que j'ai fait dans plusieurs cas. Alors, si les gens se sentent lésés, traduire l'entité concernée en justice. C'est très simple. Je crois que entité boobu duñ ko duñ ko poursuivre mais Bougane expressément Bougane c'est ça man moom laa bëggoon a expliquer diw a ngi nii di dem diw la ñuy teeru tey yàlla koy def ci jàmm mais diw ngi nii di dem ak diw la ñuy teeru tey yàlla koy def ci jàmm mais Bougane Euh, tout à l'heure Pierre mi ngi mi ngi expliqué sànq mais après euh, da nga da nga poursuivre ci beneen kii euh, sa visite de proximité yi ngay def euh, tey Bougane mu ngi ci kay taaba taaba ca mbedd ba tey Bougane mi ngi ci euh, femme transformatrice yi tey Bougane a ngi ci euh, Lompoul ci euh, cultivateur yi est-ce que ni ngay def visite de proximité di déglu jeunes yi nga xam ne ñoom ñooy daan seen doole pourquoi pas même bu fekkee am nga entreprise bu nekk boo amulee accès comme ni nga ko wax am na ñu ñu la fa toogal yow PCA dong nga fa mais entreprise bi yow yaa ko moom est-ce que jarul balaa ngay génn di defi sa visite de proximité déglu Euh, sa sa ñi lay liggéeyal également ndax foo gis ci biir entreprise ku ne am na lu la métti ak euh, lu lu la naqari wala sa liggéey soxla nga yenn est-ce que également Bougane est accessible ni ni ngay expliquer ni ngay wax c'est comme si Bougane ku ku ku ku dëgër la euh, pour employé mu jot ci moom lu métti lay doon balaa ngay lax jaay est-ce que tamit. doo ko tàmbalee si sa biir kër da ngay météo rek. météo météo ma di parce que ci fais des visites de proximité maa xa di attends alors alors visite alors alors man waaw nee naa la tung ne du teew ñuy nataal moo tax dama la bëgg a dégg si li ma la li ma la laaj. ma il faut qu'on règle un problème. il ko posé question de bi xam nga mais soo bëggee xam nga xam nga bi tey. waaw. Bougane. dafa mel ni comme yéen nekk dans la presse ñaaj jóge ci suuf yéeg ci kaw tey bu ngeen ma invité fii invité wu leen ma pour des médias nañu waxante dëgg ça c'est vrai il y ma ne ma ne mhm. des médias dafa néew ci senegal yéene bi ma am dafa néew ak lii ngeen di wax bi ñuy tàmbali dama leen wax ne leen dama bëgg bu ñu jugee fii nit ñi jàng leneen journalisme de développement dafa am il faut que ñu génn dans des, des sentiers battu ñu bàyyi waxu mbele mbele Sénégal da ngay wax ba ñu jox la réew. xam nga maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw may ma rek may ma rek may ma rek Sénégal da ngay wax a wax a wax ba ñu jox la réew. nit ñi nekk ci réew mi di jëf di jëf di jëf di jëf waxkat yi continuer di wax di wax di wax pour répondre à Fatou Bintou Fatou Bintou bi ñuy yokk salaire dans le privé mmh. c'était combien huit pour cent moom lañ leen yokkal yéen man yamuma ci loolu je suis allé à 10 pour cent c'est vérifiable ça veut dire que yemuma man ci li ñuy wax et bari na ci ñoo xam ne. le salaire de la convention. oui plus 10 pour cent. oui ok oui la convention. plus 10 pour cent. en janvier non c'était 8 pour cent. Mm-hmm. n'est-ce pas. Euh, c'était 8 pour cent. Euh, la décision. de l'État et du patronat, c'était d'aller à 8 pour cent. Mhm. Nous, on n'a pas fait 8 pour cent. On est allé à 10 pour cent. mais nit moo neexul satisfaire bu amee nangam day yootu ji nangam alors quand vous dites oui yaa ngi dem yaa ngi wax ak nit ñi mais li wax ak nit ñi mais c'est pour ton intérêt à vous à vos enfants ëllëg say doom sa njaboot. pour que lii réew mi nekkee mu na a je pouvais rester dans mon coin yàlla dimbali na ma mënoon naa toog su ma roq yàlla mu ngi may mais je me suis dit nous avons notre part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer au moment où nit ñi di wër plateau de télé yi moi je dis je vais aller vers les populations je vais aller les écouter mbay moom sama wewu tànk la tàmbalee yamuma ci déglu leen dama yegg ci dolli seen doole. d'accord Bougane d'accord on est d'accord Bougane mais euh, lii ñu def nii ak yow sax dafa mel ni kuy waaj a dem julli nga sangu janaba ba pare jàpp pour julli parce que dañ jëm ci moment boo xam ne dañ dañu jëm débat bi ak foo xam ne fu am njariñ la te lii ñuy wax ak yow mbedd mi ñi ngi koy laam-laamee. te loolu mënuñ ko romb tant que leeraloo ko ñu avance parce que dañ bëgg ki ñuy déglu du ñu message naan lu tax waxul ci lii non day fekk ñu romb loolu. dama bëgg ñu dugg ci loo xam ne vraiment buñ ci duggee day neex. te benn cas moo ñu ci dese. parce que wax nañ lépp dem sa benn cas moo ci dañu lay ñaan cas boobu nga leeral ko ñu avancé nag dugg ci li nga xam ne vraiment comme ni nga ko waxee njëriñu askan wi la te benn cas boobu c'est le cas Faradiase. moo ci des bu Kaolack bu kaw mm-hmm. on règle ça et bi nga tudd. ku liggéeyul mën ngeen ko fay. c'est très simple. ku liggéeyul du fayu. te su ma yoree réewu Sénégal tamit noonu lay deme ku liggéeyul doo fayu. ku ñëw 9h génn 10h 13h nga dellusiwaat heure bi nga liggéeyul duñu la ko fay. c'est très simple. y a pas à voir de midi à 14h. nit ñi dañu nekk nee naa dañu nekk ci réew moo xam ne nit ñi dañuy wax rek. les gens passent tout leur temps à di mbele mbele. il faut ñu dépasser loolu dépassionner yenn sujets yi liggéey collaboration la collaboration boobu bu ñu demee ba nekkatul kenn ku nekk dangay wuti sa wërsëg feneen xanaa xamoo ne Cheikh Niass suba mën na laa xool neexoo ko mu ne ginnaaw suba bul xëy si xamoo loolu. Mm-hmm. demal nga gis comptabilité ñu fay la liñ la war a fay bu ginnaaw suba bul fi dugg si sañ na ko. correspondant boobu amoon na contrat ki nekk Kaolack jaase boobu. mais son contrat a été transmis à à l' avocat. ñu ngi ñu ngi ci procès nii. xaaral procès boobu mu yegg. ok. Oh, je pense que donc tout à l'heure am wala ci bëggoon yokk le cas euh, Fara Diasse rek mhm. euh, euh, de Kaolack. Mhm. moi je je parle pas Bougane de droit de contrat ou de quoi que ce soit mais j'interpelle Bougane Gueye Dany ci boppam parce que man je connais pas Fara Dias mosuma gis mm-hmm. mais ce qu'on m'a dit de sa situation mm-hmm. qu'il vit actuellement mm-hmm. parce que si les informations sont bonnes il a même perdu sa femme je veux pas entrer dans sa vie privée a perdu mais... sa femme avant il vit des moments difficiles et on l'a rapporté ce matin te ki ma ko c'est parce que dafa xam ne da nga fiy ñëw mm. moi je tiens à interpeller je ma yónnee wu de presse. Mhm. sama yoon wu ci D-Média. Mhm. mais l'homme que vous êtes. alors le sénégalais que vous êtes. dama dama dama lay inter dama lay interpellé. l'être que vous êtes. ma ne. oui ki la dóor kurpe ñu bët. daa bëgg nga gumba. Mhm. daf la dóor kurpeñ. non déggoo li ma wax dama wax wax ju leer. ki la dóor kurpeñ ci bët. daa bëgg nga gumba. mais boo ko tànnee également. non ma ne. oui boo demee. ba yegg ci situation. ne da nga yóbbu nit ki ci justice. il faut en assumer les conséquences c'est très simple. dama ne. nit ku liggéeyul mënta fayeeku nañu bàyyi waxi naafeq yi je suis désolé il faut pas que nit ñi. jouer ci sentiment doomu aadama yi. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga Moustapha. même si euh, euh, je sais pas qui a raison. d'accord naa d'accord naa ak yow. d'accord naa ak yow. xam nga loolu mën tey. Euh, relation bi ñu am. nga mën a jël sa téléphone woo ma. mënoon nga ma ko bañ a wax ci plateau xëy na boo ma ko waxatoon ci plateau man ma ma ma géré ko. man je l'ai fait woo naa la ñaam la defal ma moom mii woo na ma. je l'ai keneen ak keneen woo nañ ma. Mhm. mun naa man perdre le bras. Mhm. mais am na nit foo xam ne bu fa yeggee danga koy bàyyi mu dem. Mhm. am na bu yàggul. keneen koo xam ne ci biir kër gi la nekk mhm. ci beneen entité yóbbu kër gi ci beneen entreprise justice mhm. gaa yi wax ma ko ma ne ko na dem justice bi mu demee justice justice jox nu ndam ma woo RH bi ba mu ñëw ma ne ko lim la doon laaj mhm. woo ko ba mu ñëw nga jox ko ko ñaari yoon kon xanaa nga xam ne. Mhm. am na foo xam ne bu ñu fa tolloo. Moustapha